Touba ca kanam jërëjëfati Serigne Touba mbokk social Ramadan édition 2021 wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani Touba baat Touba ca kanam ak commission bu amaana bi di commission sociale ci njiital Serigne Mourtada moom Serigne Abdul Fattah ak jàmbaar yi nga xam ne ni ñoom lay àndal guddi ak bëccëg ni ñu ko baaxoo di def at mu jot ren di ñeenti at commission sociale bu Touba ca kanam nii la ñuy wëree ak di nemmeeku ji ñi nga xam ne dëgg dëgg ndimbal ñoo yayoo ay jàmbaar yu góor ak yu jigéen am pas-pas sawar lool ci li ñuy def seen yitte yépp ci taxawu doomu aadama la moo xam muy guddi moo xam muy bëccëg moo xam muy tàng moo xam muy sedd équipe bu recensement yaa ngi nii mbokk yi ci ñeenti xibla yépp lañ leen di yabal ñu daw lu sori ba fekk ñi nga xam ne mbokk yi ñu ngi nii nii lañ dëkkee nii lañ nekkee commission sociale ànd ak ñoom massawu leen coono indil leen nuyób Touba ca kanam dalal seen xel fas yéene ànd ak ñoom ci jafe-jafe yi gunge leen ci seen kem kàttan mbokk yi laaj borom kër ga wax jigéen ñi bind leen enregistré leen kii bind ticket yi bind ticket yi jox ko borom kër gi xamal ko ne ndimbal yi ci kanam di joxe xaaruñu ngeen ñëw laaj ko de dañ leen di wër ba fekk si leen fi ngeen dëkk te ku gis xam ne yayo ngeen ko ñu jox leen ko bés sangam barab sangam ngeen koy jëlee Touba ca kanam commission sociale faggu ay magasin ci xibla yépp kenn ku ci nekk ñu xool fa la gën a jege ñu yabal la fa nga jëli fa saaku ceeb gorosu suukar tàndarma ngir gunge leen jàppale leen ci weer wu sell wi mbokk yi nii la commission sociale di dooree liggéey bi ci recensement bi gis ngeen mbokki taalibe yi mbokk nii rek lañ koy defee ba lu toll ci ñaari junni borom kër ak juróom ñaari téeméer ak lu topp commission sociale fekki na leen fas yéene leen dimbale ci weeru sell wi mbokk yi wasari xayrihi wa kulli fitanin waltaqina sara nazara wasara ilisa wa kulli sijud waljil wa dajali fi sudani fi zarqi wal maghribi بيداني وسرما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطن اختتما يا لطيف يا كريم يا جليل حامل جميعنا بلطفك الجميل ba bés bi nga xam ne nag le jour na bi kon mu ngoog tey mooy bés bi nga xam ne moom la ñu tànn kilifay Touba kanam yi daje ngir lan ngir door li nga xam ne mooy joxe ndimbal yi ñooñee ñu joxoon bon yooyu te fekki leen ci seen dëkkuwaay yu sori yooyu sëriñ Abibu Mbàkke sëriñ Abdoulahat ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk tubaa ca kanam président commission sociale bu Touba ca kanam ñëpp daje ci kër Serigne Touba gi ci Daaru Marnaan ne tey nag mooy journée officielle lancement journée sociale Touba ca kanam édition 2020 hal yisali abadan xayra salaat bi alu rafiq al khiyar wa sighar wa ablana ahsal siatana wa tarkama fi liman nana حتى يكون كلنا في الركات مقتديا بسنة وسكنات وراجنا بجاي من دعوى ولتكفنا كسبا ولهوا ولتكفنا وما لا يغني بك ودابا اخلنا يا مغني يا الله مغفرتك المؤمرة عوسوا من سنوب ياس مولا يا بر رحمتك ارجى عندنا min amali nasibu faxfir ci la commission sociale di leeral nag mbooleem luñ ko joxoon moo xam muy ay koppar moo xam muy ay bagages lenn lu ci nekk fa mu jóge laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam ñaata boroom kër la lañu dimbale ñaata lañ jot ci koppar ba lépp leer ñu àndandoo ci njiital Serigne Abibou dem ci magasin yooyu nga xam ne nii commission sociale bu Touba ca kanam faggoon na ko ngir séddale ndimbal li nga xam ne ñi ko yayoo rek lëkk commission sociale bi jox Serigne ngi nii mooy njëkk a joxe ndimbal yi. nii la ticket bi mooy ñëw ñu xool ndax tur waa nga ca biir ñu xool ndax mandarga yi koy xàmmee nga ca biir ñu xool ndax mooy borom kër ga ñu recensé woon ndax méngoo na ak ticket bi ñu ah, bind mu jox ko li nga xam ne mooy ndimbala kilifa yi ma àndalit def ni moom liggéey ba door na mbokk yi waaye bés boobu it mbokk yi ndaje mu am solo mu am maanaa ndaje coloré ndaje fàttaliku sunu jàmbaar yooyu nga xam ne dañoo des ca tóokóor ba te Cheikh Mamadou Mourtada ne ay chéit lañu Touba ca kanam commission sociale ci njiital sëriñ Abibu ndaje mu dayoo yaram la daje ak way juru jàmbaaru sëriñ Touba yooyee ak lim bu takku ci dund ak lim bu takku ci ay koppar du koppar yi de du dund bi de waaye dañu ñëw nemmeeku si leen ngir wax leen ne duñ leen mës a fàtte suñu jàmbaar yooyu dañuy wéy de ànd ak Touba ca kanam ci lépp lu muy def waxtu wu nekk loolu mooy tànk yi nga xam ne Serigne Abibou ak kilifa yi nga xam ne ñoom laa dal ak commission sociale dox nañ ko seeti sunu mbokk yi daanu woon ca tookër ba rabbana aqbal nasmana bi hurmatil hasani wal husayni ma hurmati kulli man hilasa bil jamam wa hurmatil banina wal banati wa hurmatil ali ma'a zawjatin wa hurmatir rusuli wal anbiya'i wal hulamai ma'a al awliya'i وحرمة الملائكة الحر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم commission sociale bu Touba ca kanam noone la ko defee ci association yi xam ngeen ne association handicapé yi Serigne Mourtala moom Serigne Abdoul Fattah bu fekkee ne handicapé mooy ko manqué ñun ñëpp ay handicapé lañu sunu mbokki talibi yi nga xam ne ñoo jiite association yooyu commission sociale bu Touba ca kanam ban leen xel ci lim bu takku ñoom it ci dund ak ci koppar yu jël si dund gi waaw képp ku ñu jox sa ceeb ak sa suukar danañ la jox paas boo ko yóbboo bu toll ci ñeenti téeméer mbokk ñu noonu association yi ñu ñoo leen jiite ñu ngay sant ak a gërëm فلتفرق بيني وبينه السليم أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عاصم كل أن وصنام أنا الذي لست عميل أبدا إلى سواك هنا ثم خدا waaye mbokk yi ndigal li sëriñ bi joxe woon ca njaareem ñu di ko jëfee boobaak léegi te musta dakk di alxuraan yi nga xam ne dañu koy jàng suba di ko jàng bëccëg di ko jàng ngoon te dara dara du tax ñu bañ koo jàng alxuraan jooju nga xam ne moo tee réew mi de lu waay di def na leen ci baxel loolu tax commission sociale bu Touba ca kanam dem daaray kaamil dooree ko ci jumaa ji ànd ak waa xidma ñëw nemmeeku si ñi nga xam ne ñooy jëfee ndigalal sëriñ boobu te waxtu nekk nag ñu ngi ànd ak ñoom ci commission sociale weer wu jot waaye tey journée sociale ramadan moo seet si daaray kaamil bu jumaa ji daaray kaamil bu daaru xuddoos beyti yaa fadlu anta sunata ya majidu wa anta abdi fala wasidu mawlaaya anta sunata ya nafiu wa anta abdi fala uxatiu anta lasi tuli muhibuka huda wa anta abdi fala xisiwa daaray kaamil sëriñ Sohaybu عن كل صناب وزور كل عين وتكفني يا أسى البقاء والخدم هذا الذي ماس إلي بالخدم وسر من يركب ساسلاي وسر من يطير ساجراي وسر من يعيش بالكلام وسر سدج والخيام وسر من ينفس في العقود وسر زائر وزي جودي بك أخذت يا إلهي نزلا وآية وأغربا وأسودا داري كامل دارو منم وائلا وزائرا وزارقا والإنس والجن معنا نوال جميع من خلقنا في مالان بألف ألف نفس لا حول ولا قوة إلا بالإله سلولا ونجني من شر ساكن البلاد وشر كل والد وما ولد والتكفيني شرف من وعيني وكل من خصدني بالعين والتكفيني شرف من وعيني وكل من قصدني بالعين ونجني من شر كل سالم وشر كل جاهل وعالم وكل daaray kaamil bu Daaru Muxti bi ñu yegsee béyti délégation bi dafa fekk ñuy wàcce kaamilu alxuraan fii ci Daaru Muxti nga xam ne quartier la ca Touba wa kulli taayirin wa kulli maacin wa kulli xaamilin wa kulli faasin wa kulli aasidin wa kulli shaani wa kulli jabbaarin wa kulli jaanin wa najjini yaa man ta'aala yaa majiid min sharri jinnil maa shaytaanil mariid wa sharri zil qurbi wa sharri naayin wal arri wal bardi wa sharril maayin wa shawi dani wa inni abad wa tayril xalba wa shaa'il jasad وأمني الخيام في الليالي والزوم في النار بالإكمال وخلي من الرجائل وكل مجمل بالفدائل وشكل بي وافتان رب اليا فدر مبينا لا يرى لمثليا ولي مساقة ونورا وفي السراط يسير المرورا وابي سكر بسر كل هين وحدني من جملة المقربين bu daaru salaam commission sociale ci njiital Serigne Mourtada moom Serigne Abdou Fata nii la ñu liggéeyee mbokk yi ci quatrième édition bu journée social Ramadan mbokk yi. wa nafsi wal xalqi madal asmaani waliya fi daarayni kun maasa wa fi maali la tasal malaasa wa safiyani xalaban wa xalba waliya tarxiyatan wa hubba wa kun wali fi layaati walda moti wa fi lqabri wa fi lariqada wala tasalli ala fi suamiha حافسا واجبا وراضيا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى العدى مكرما وهاديا وناصرا ومنفا بكل من ينفعني وبالتفاق وبسلك المسالك الخلافي ولتكفني عن جملة المعازم وبسلك رب الطريق الأولياء commission sociale ci njiital Serigne Mourtada moom Serigne Abdoul Fattah di sant bu baax nag Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne waxtu nekk ci daara yi waxtu nekk ci dund gi waxtu nekk ci taxaw ñu tawat ci commission sociale loxo ma nga ca moo cay jiitu de waaye di santit ñi nga xam ne lu ñu seen sëriñ bi tàbbi ca mooy jàmbaar yi nga xam ne feelu nañ ko ci lim bu takku ci commission sociale ak bokki taalibe yi fu ñu mën a nekk wuyu si nañ commission sociale bi li ngeen joxe woon a ngi de ñi ñu ko joxoon a ngi nii nii it lañu leen ko joxe xaaruñu ñu ñoo laaj ko de dañoo dem fekki leen wëri leen daw lu bëri sëriñ Moutala moom sëriñ Abdul Fattah nee na mi ngi sant mboolem waa commission sociale ci seen taxawaay di sant ñi nga xam ne muy guddi muy bëccëg muy taw muy ngelaw muy naaj muy sedd di jàmbaar yi nga xam ne ñoom laa dal di soxna di góor di waa diaspora pëccëg nga ca kaw waaye xel maa ngi ci suuf liggéey bi daal la ngi ni mbokk yi yitte rekk la yéen yi nga xam ne kat naka jekk waxtu nekk yéen a ngi ànd social social kat lu ñuy barkeeloo de ni ñuy lekkee di ko naanee di ko soloo di ko doxee suñuy yitte noonee la lañu war a taxawee ci commission sociale ndax kan mbokk yi ñi ko yittewoo bëri nañ lool de ñi ko yittewoo yaatu nañ lool de ko kon nag ay ca mburit yitte rekk la bu mu dakk ndax commission sociale kat waxtu jot ñu ngi ci ñi nga xam ne dañoo yor ordonnance te amuñu luñ ko jotee commission sociale waxtu jot ñu ngi ci ñi nga xam ne dañoo war a def scanner tàmmuñu duñ ko defee commission sociale waxtu jot ñu ngi ci ñi nga xam ne dañoo war a def analyse tàmmuñu luñ ko defee commission sociale waxtu wu jot mu ngi ci ñi nga xam ne dañoo tawat feebar nanu mënuñu amuñu ko leen jàppale ñoo ñee waxtu jot jàmbaaru commission sociale yi ñu ngi leen di taxaw kon mbokk yi numéro yaa ngi nii lépp lu ngeen ci tabal mu yegg si ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi boo ñëwee ci siège ba ci secrétariat lépp loo fi indi mu yegg ci ñi ko yittewoo jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi mbokk yi yitte rekk la jërëjëfati Serigne Touba waaye jaaraama commission sociale bu Touba ca kanam almubaraka wa sayran li zalika wa nazika